salaamaaleykum euh, c'est Ousmane Noël Dieng chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr à la DGPU euh, je suis le président du mouvement MJKDF2S mouvement des jeunes de Kaolack derrière Diène Farba Sarr waaye mais loolu lu ñu mës a la lu ñu mës ñaan la parce que euh, sans l'unité rien ne peut faire bu dee ñu Kaolack moo ñu tax a jóg ñu ñëpp ñuy doomu ndaw Kaolack bu dee Kaolack moo ñu tax a jóg bu dee jàppale président de la République moo ñu tax a jóg je pense que dara warul yàq ñu war a mun àndandoor jubo pour liggéey Kaolack et donc euh, looloo waroon de tout le temps soo gisee samay appel damay def appel à l'unité ñëw la ñu àndandoor ñëw la ñu doon benn ñëw la ñu liggéey Kaolack derrière le ministre Diène Farba Sall mi nga xam ne moo ko créé moo créé APR biir Kaolack wax dëgg yàlla ba pare nag def ci lu rëy créé fay emploi plus de trois cent et quelques jeunes ñuy liggéey de créer des directeurs généraux tabax fa infrastructure lu mu def ko fa et donc euh, jiital loolu ba ba pare léegi nag moo waral nag ñu àndandoo ñu ñëpp doon liggéey boobu ba léegi nag ah sottiwuloon waaye nag bañ demee ba gis mbir mi xam ne ne euh, sans l'unité rien ne peut se ah, wax dëgg yàlla suñu yaay Mariama Sarr mi nga xam ne comme ni ma koy waxee rek euh, yàlla moo ko teg ci mairie Kaolack euh, kenn mënu ko fa jëlee ku dul yàlla suñu borom ndax yàllaay fal léegi nag nga nekk ci biti di ko saani xeer ànd ak moom ne ko tali bi yàqu na Mariama defaral moo ko gën ànd ak moom ne ko lamp yi leerul Mariama defaral looloo ko gën ànd nag moom di ko wax ne ko fee sa marche pas gars yi ngi yuuxu faj ko looloo ko gën moo gën nga nekk ci biir di ko sànni xeer amul benn solo parce que loo ko sànni sànni xeer teewul mu fay ne parce que yàllaa ko fal et donc boo nekkee ci gaal gi nag dangay ngay yàlla borom gaal gi sauvé ndax bu gaal gi sauvé rek yow tamit di nga sauvé Kaolack dina sauvé borom gaal gi nag mooy Mariama Sarr mi fi yàlla teg loolu rek la et donc euh, teewul aussi nga am nga nga am bëgg-bëgg si li nga bëgg teewul aussi nga am ambition waaye nag euh, bu ambition jotee ku si nekk di nga xam li nga bëgg a def waaye nag feeg mi ngi mi ngi fa war war nañ ko mën a jàppale ñu ñëpp pour Kaolack pour le développement de notre cher Kaolack. beneen euh, yaa ngi laaj euh, le président Xuma Abdoulaye Xuma et donc euh, Abdoulaye Xuma franchement membre fondateur de l'APR la kum neex ak kum naqari ànd seeg monsieur le ministre Diène Farba Sarr moo ko présidente moo ko présenté président Macky Sall moo moo jël président Macky Sall indi ko ci këram. et donc bu ñu demee tey ba àdduna di di dox mu ñëw dugg ci langue politique bi nag ah dugg kaw la gis ne am na fu mu nekkoon am na fu mu nekkoon kooku xëccu bëgg euh, éliminer Diène Farba Sarr ñun xam nañ lépp bëgg éliminer far ba ci ci ay ay ay ay corromp ñun xam nañ lépp duñu duñu am na am na un jour viendra nag dinañ wax en ce moment la tolluñ ci moment wax mais xam nañ lépp xam nañ corrompu bi xam bii présidence nu ñu fexe ba éliminer Diène Farba ci ci li nga xam ne président moo ko dénk muy muy muy muy muy muy muy muy euh, le coordonnateur la de l'APR ñu fexe ba corromp corrompu nit ñi fay ñi fay ñee su ko defee amul benn kayit bu ñu wan ne Diène Farba Sarr teggi nañ ko ci coordonnateur départemental amul benn kayit bu ñu wan ne moom moom mooy président moom mooy coordonnateur waaye nag ak doole ñëw na ak alalam. alalam bi nga xam ne ñëpp xam nañu fu mu jugee xam nañ luñ koy luñ koy luñ fu mu jugee ñoo kromb ci ci biir présidence ay nit ñooñu jóg taxaw di ko jàppale ci ay loo xam ne ay naxasaxandang la ay ay kàcc kese la quelqu'un boo xam ne amul benn benn benn benn koo xam ne moo waxoon ne président Macky Sall booy dugg Kaolack en 2012 dama lay rey kooku tey jii ay pexem bu juboon président Macky Sall du doon président tey bay bay ba muy nekk coordonnateur et donc kooku tey euh, yow nga nekk mouvement un mouvement na nga mën a jiitoo ah, parti bi loolu c' est impossible na nga yore mouvement yow munoo sax xamoo sax looy war a wax ba pare nag munoo sax bind sa tur nga ne yow da nga bëgg a parti bi da nga bëgg a jiitu un intellectuel un technocrate comme Diène Farba Sarr et donc loolu doole nag moo man dëgg waaye nag dëgg mooy mujjee instant bi nag c' est l'heure de la vérité l'heure de la vérité a sonné mooy lan mooy le le grand retour du ministre Diène Farba Sarr moo waraloon Abdou Abdoulaye Khouma ñëw sama bureau ñëw seet si monsieur le ministre Diène Farba Sarr jaar ci man ne franchement dafa gis dëgg te allah wala xaqu wala ko allah dëgg nag boo gisee dëgg moo mën lépp loo gis duna dëgg loo ko suul suul suul suul dëgg day mujj génn looloo waral dëgg ji génn mu ñu xam ne le ministre Diène Farba Sarr moom moo fi nekk mu waxaat ko ne ñu ñëpp suñ bëggee Kaolack jëm ci kanam bu ñu bëggee ñu amaat jàmm bu ñu président Macky Sall bu ñu bëggee fekkee intérêt Kaolack moo ñu tax a jóg ñu ñëpp nañ doon benn nekk ci gannaaw euh, monsieur le ministre Diène Farba Sarr pour faire avancer notre chère foofu noonu ak ñu ciy rafetlu di ko kontaan am na grandeur bu rafet bu mu def lu rafet la def ñuy ñaanal yàlla nag loolu mu te loolu muy def mi o Mariama Sarr o ñëpp ñu ñëpp ñu nag ba élection yaa ngi ñëw ah, jiital comme dem ba jiital nag ñoo xam ne kii la jiital moom moo def choix am waaye ñu ko ñaan moom aussi saa bi def na choix bi rek ànd ak si si ci yoon bu mu am def choix bu ànd ak favoritisme bu mu def choix bu ànd ak yaama neex bu mu def choix bu ànd ak boo xam ne influence lay am parce que y a des des des soi-disant marabout à Kaolack à Kaolack ñu les soi si parce que am na nitu yàlla dëgg talul politique. nitu yàlla xaala laahu xaala rasul la ñu wax waaye xaala politique moom a sol sa mbaxada yaabar yaabar yi parce que dañ laa financé dañ laa jox xaalis ñoo xam ne ñun demee quoi xam nga ñu jox la 6 millions. wala jox la 5 millions nga taxaw fee naa monsieur le président ñun suñu candidat mooy nangam te ar ko archive foo xam ne ñu demee yo gëmoo candidat bi parce que dañ laa jox xaalis président Macky Sall na ci bàyyi xel na ci bàyyi xel ñii sol seen mbaxane bi naan ay kii moo suñu candidat yëpp c'est des c'est des c'est des yoo xam ne c'est des corrompus dañ leen jox ay 6 millions que 5 millions xam nañ ñu demee heure wax jotagul men dinañ wax yi mais nag bu mu focaliser wu ci loolu na jàpp ne Kaolack dafa am dafa soxla des hommes de valeur Kaolack il a Kaolack a besoin d'un homme de valeur comme Diène Farba Sarr comme Ousmane Nawel comme ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne baax kon boobu buy def choix na porte choix si ñooñu noonu ñu mën a changer Kaolack parce que kat ah Kaolack Carrefour la mooy dëkk Maolana Cheikh al Islam mooy dëkk Serigne Bassirou Mbacké mooy dëkk Abdou Hamid kan mooy dëkk Serigne Bassirou Mbacké euh, euh, euh, comment dirais-je maam maam El Hadj Abdoulaye Niass mooy dëkk maam Khalifa Niass mooy dëkk jàngo bi kon Kaolack du du du du du du kon bu ñu koy dénk nañ ko dénk ku ragal yàlla ku yàlla koo xam ne franchement bu ñu ko dénkee 2022 à partir de 2022 di nga xam ne Kaolack franchement ah, am na am na am na am na ñu ko ci loxo yu bees yu nekk ñu bugg mel ni nag comme la défense de Paris comme fu nekk fu nekk loolu la ñu te yàlla ko yàlla def ci barke Yonent bi sallallahu alayhi